tarif yi. dañuy génne def tout une campagne de publicité euh, sur un tarif professionnel par exemple je prends les live box ñu génne live box yi ñu ne c'est à neuf mille neuf cent ñëpp rueewu vers ces live box pour neuf mille neuf tu as tant de gigas mu nekk une solution très efficace nag wax dëgg yàlla ñëpp rueewu ci ci produit boobu ñu jékki-jékki ñu dem ba ci biir l'opérateur sans crier gare jékki-jékki wàññi le nombre de gigas yi mu la doon jox euh, avec le tarif de 9900 ba pare dem créwaat un tarif de 14900 ba pare euh, foofu tamit 14900 bi euh, gig nombre de jiga yi du du du du du demee noonu boo ko jëndee sa aajo du faju boo ko bëggee étaler sur le mois Euh, la tarification euh, de de de de certains appels et parfois j'ai l'impression que le régulateur du intervenir ci loolu day toog di di seetaan. di seetaan opérateur heureusement que vous dites vous c'est une impression. waaw day toog seetaan opérateur def lu ko heureusement heureusement que c'est une impression. oui c'est c'est c'est la consommation ça impression boobu lay oh, d'accord naa si bu fekkee ne impression la. Euh, mais li am solo mooy amul benn tarif buy opérateur di pratiquer sans pour autant. solliciter le régulateur euh, nous avons des outils des outils qui nous permettent à chaque fois que nous avons des tarifs de pouvoir les challenger le tarif l'ajout de tarif yow yow da nga koy càmbar non ma ne euh, am na tarif boobu nga doon wax noonu noonu waaw nous sommes intervenus pour demander à Sonatel de le retirer à un moment donné dindiw ko non il a enlevé ils ont ils ont mis encore ils ont changé les tarifs parce que le régulateur est intervenu tarif balaa opérateur di ko joxe dafay bind ARTP ñu jox leen go ñu jox leen ñu wax leen ok vous pouvez y mais am na am na aussi benn benn euh, comment dirais-je euh, xaw ma psychose laa koy tuddee xaw ma lan la mais euh, les gens euh, parfois dañuy soulever ay question yoo xam ne. en réalité basé wul wala fondé ci lenn mu dem ba ñépp jàpp ni loolu la tellement les gens en parlent. xam nga xam nga lan laa nekk di def nii. oui. Euh, flybox yooyu ma lay wax. Mhm. bi mu amee dama ci ruweewu parce que malgré. non je suis xam nga xam naa c'est-à-dire gis nga. ma ne. 4 4 4 mégabits à mu ne la bi ngay wax ni voilà mu ne la 8 mégabits à oui. 16 900 au début. oui c' était 4 mégabits bit à 9 900 mu jékki-jékki mu dugalal ñu 8 mégabits à 16 900 aujourd'hui boo jëlee 4 mégabits bii doo ko ci pour pour pour le même rythme d' utilisation euh, bi dafa wàññeeku. may mun a xam nga li ngay wax nii euh, bi mu xewee j'ai appelé le DG. de Sonatel mu may déglu je lui ai demandé de surseoir à cette offre là le temps ñu examiner ko mu may déglu quand j'ai eu des levées de boucliers euh, population yi commencé di wax et c'était vrai j'ai reçu des alertes j'ai demandé à ce que ñu teg offre boobu ci ci suuf et je me rappelle que la première offre qui avait fait euh, soulever euh, ces, ces vagues de contestation, cette offre-là a fait l'objet de réaménagement. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le régulateur ne croise pas les bras. C'est un travail au quotidien. C'est des sollicitations au quotidien. Nous sommes à l'écoute des clients. nous sommes à l'écoute des opérateurs et nous travaillons pour protéger l'intérêt de l'État le président de la République Macky Sall euh, bokk na ci li mu gën a farlu muy xeex augmentation de tarif sur tous les plans muy consommation muy leneen ak leneen muy les services des télécommunications les services de télécommunications n'ont pas connu de hausse au Sénégal les services donc les usages nag changent bay mun a amoon na moment boo xam ne ngeen baal ma TikTok amul TikTok amul boo jëndee euh, sa sa sa paas yaa ngi ci doon connecté wu Facebook euh, et cetera mais quand on rentre dans des applications gourmandes en ban passante. TikTok ak euh, YouTube. ay euh, YouTube des applications qui sont gourmandes en bande passante mais c'est normal que mu dem les gens ont l'impression que affaire bi dafay gaaw a jeex. mais mais mais mais par exemple opérateur yi. tey jii tey jii 80 pour cent des consommateurs de Sénégalais ils sont dans le YouTube en permanence. mais ils sont non non li nga li fi nga dugg foofu bul gaaw a génn. 90 pour cent tey jii je prends euh, l'exemple de nous tous qui sommes des consommateurs foo gis nit mu ngi sëgg di seetaan vidéo est-ce que loolu amoon avant amul mais mën nañu am quand même des tarifs moins chers mais opérateurs yi dañ ne loolu mën na nekk bu fekkee ne l'État du Sénégal revoir na à la baisse le montant yi mu leen di joxe les fréquences. Je ne je ne crois pas à ça le problème n'est pas à ce niveau-là l'État a baissé les fréquences.